une UNAPES dañuy rafetlu euh, jotaayu tay bi ndaxte comme que dañuy dem ci examen bo xamné bi ñepp ñëpp xam nañ ne jongante bi nga xamné mom mo gëna gën diis ci système éducatif bi donc euh, ñu ngi koy rafetlu euh taxna dina tax tay bu ñu sot ku nekk bu indee xalaatam dina dinañu permettre ñu dal di organiser examen bi ci condition yi yi gën li tax ñu dal di ci vraiment am yaakar mom moy peut-être

am nañu confiance ci autorité académique yi ndaxte yàgg nañ koo def waaye li ñuy bëgg rek mu loo xam ne lii war na mooy nañu bàyyi xel ci peut-être euh, maanaam euh, seen euh, këyit yi nga xam ne moom moo leen di identifier mooy seen carte d'identité scolaire yeeg carte d'identité nationale yi ñu mën ko yombalal de telle sort que képp koo xam ne kii dem na examen ak carte d'identité scolaire bu waree récupérer diplôme mu dal koy mën a récupérer je crois que loolu bu ñu ko defee nañu mën a permettre vraiment conditions yi organisation yi dal di baax ak aussi wàllu peyooru ndàmpaayu jàngalekat yi ndaxte dañ ko seetlu at mu jot dañ ci topp topp topp pour ñu leen leen ba mujj gi dañuy dem ba bay menacé dal di gréew pour que ñu dal di leen fay ah dégg nañu nag ministre bi dal di koy wax tey te bon dañu am yaakaar ci ne li mu wax dana war a mën a nekk parce que wax dëgg yàlla loo xam ne day am toujours ñu ngi leen di wax daal lépp loo xam ne ci wàllu ndàmpaay la nañ ko dal di génn teg ko bu ko defee bu bu bu ñu defalee seen euh, examen concours yi ba pare ñu mën leen a dal di jox seen xaalis jàmm na ko